gaay reer bu cuq bi nga xam ni Paris Saint-Germain dana koy amal at mu jot ak émir di Qatar loole nag daanaka ñu bari jàppoon na ni kii di euh, nga xam ni mooy international français bi di Mbappé du ca bokk waaye fi mu toll nii nag confirmé na dina ca bokk waaye jotewul dara nag ak li nga xam ni moo nekk ak demam ca Real Madrid sant nañ leen gërëm leen yéen ci Infos Matinales El Hadj ci kàddu gi abonnement yi ñu sakku ko ci yéen bu baax a baax ndax loolee dana tax lépp lu ñu mën a dugal ci information yu wér di wóor ngeen man ko am loole tamit nga xam ni daanaka danañ cay faral di gis kii di Emmanuel Macron nga xam ni moom fan sa lii di Paris Saint-Germain ak équipe am loole tamit nekk loo xam ne lu nu mën a bàyyi xel la da doon reer boo xam ni sa waaye daal day ami enveloppe am lépp loo xam ni war naa am ci xeetu xar baax Mbappé ngoogu direction Euh, Real Madrid ñu ñëw nag ci match bi nga xam ne Séville doon na ko football ak Real bari na ruq-ruqaan yoo xam ne nee naa leen dañuy bàyyi ba match bi jàll ñu leen ciy génnal yoo xam ne sax daawu leen ko bàyyi xel action bi ma leen di bëgg a wat action la boo xam ne euh, kii di Fede Valverde amoon na ko ci match boobee mu nekk action boo xam ne bu doy waar doy waar la ci frappe boo xam ne ci biir poto baak poqus bala boole lépp ndunkuñ yéen a gis occasion bi te li nga xam ne nag mooy Fede Valverde mooy dóor ngeen gis ko noonu xaañ ba daanaka direction ca poto ba mu nekk loo xam ni lu am am solo la ci wàllu match bi nga xam ni équipe bi di Real Madrid doon na ko fa bal ngeen gis ci gone yu merengue yi ñoom ñëpp kenn bi nga am ci digg milieu bi nga gis fële kii di Rudiger Antonio ñëw taxaw temm nag gis kile di euh, Rodrigo Goes ak ñoom ñëpp daanaka footballkat yi kenn ku ci ne am nga taxawaay boo amoon ca match boobee Alphonse Davies moom it ngeen gis ko démb ñëwoon ci waaye nag fi mu avancé na bu baax a baax Real Madrid daanaka am na maanaam déggoo ci digg diggante ñoom ñaari équipe yi wala bokk footballkat bi ak direction Real Madrid pas équipe bi nga xam ne mooy Bayern Munich ndax alal jane laaj bari na waxtaan daal am na ba juboo li ci des mooy finaliste yi ak Bayern Munich mi yor njëgu gone gi bu ko defee bu ñu waxtaanee ba déggoo mu sol